asalaamaaleykum wa rahmatullah vendredi novembre ñëw ak yëglikaay suñu lamb la ñuy doore ko mu mel ni ki yëglikaay bi di suñu lamb nag moom fa mu xëy ñëw fenn la Pikine daal la xëy dugg ak seen mbër yu mag ya nga xam ne fi nekkin daal maanaam ñoom ku ci ne am na combat bu 10 a 10 boo xam ne gàddu nga ko moo tax suñu lamb jàpp ne day li nga ci bii jàpp ba nga xam ne ci jëm boo bëggee dégg-dégg moom waa Pikine ah ku ci koo ci gis daal muy mbër wala boog mbër yu mag ya combat ba nga jël metti na ndax yëglikaay bi moo tax mu xëy wan ñu Eumeu Sène ak Ama Baldé Boy Niang ba ci soq ndax ku ne xam ne ne Eumeu Sène digganteem ak Lac de Guiers numéro 2 taxaw na muy ñetteelu combat boo xam ne war nañ koo bëre muy combat boo xam ne ku ne xam ne ne narta yomb Ama Baldé moom combat royal ba lay xëccoo ji maanaam couronne ba daal lay xëccoo ji moom Ama bu dee Boy Niang tamit beneen combat ba mu am moom tamit di combat jànq boo xam ne muy digganteem ak Tapha Tine nekk combat bu naram metti waaye soq tam ku ne xam ne noo fas yéene laale moo tax sunu làmb daal xëy tey ñëw ci ñoom ñeenti mbër yi nga xam ne Pikine la ñuy yeewoo te ku ci ne jël combat boo xam ne jàpp nañ ne combat la boo xam ne bu diis a kenn ca ñoom nag di Boy Niang moom am na ka muy war a bëreel muy tafaatin yëglikaay bi ñëw na ci moom tafaa xëy na di ko avertir daal di xam leen daal tafaatin daal la moo xamal booy Niang ne ko sama retour ci làmb ji moom lu explosif lay doon loo xam ne daal bum lay dafa defa def loolu mooy waxe ka nga xam ne moo di tafaatin keneen koo xam ne nii moom bëri na ak booy booy Niang muy Baye Mandione yëglikaay bi ñëw na tey ci moom baay ma Mandione nag defet ya ko naqare ci carrière am daa mel ni xëy na tey am yum ca tànn digganteem ak Baboy bokk na ci lees numéro 2 ba ci Modou Anta Baye Mandione daal ñëw na ci mbir yooyu nga xam ne ni maanaam loolu arrivé na ko ci làmb ji rawatina combat yooyu nga xam ne da koo ñàkk kii moom ñàkkul ay combat am wala boog ña mu bëreel daan na leen moo tax yëglikaay bi xëy tey sampob laaj ne léegi nag kan mooy nekk adversaire am muy jam téeri bu kayaar ndax yëglikaay bi na la ko commencé ca Vandam Mbaye Guèye Junior tonnerre jet li ku ci ne ba mu jaar ak yow ci bés wan na la lu leer nañ ba ci baara njaay bu faas moo tax yëglikaay bi xëy daal di laaj ni jam mu kayaar mii kan moo koy dëkk wala boo kan moo koy defee bëre ak moom sunu làmb xëy tey wax nu lu mel ni ki noonu kii moom am na adversaire ba pare muy Modou diggante digganteem ak Ama Baldé yëglikaay bi di sunu làmb nag ne na tey ji daal ca fa nga xam ne mooy place du souvenir moom bu maanaam 16 jotee ñeenti waxtu ci ngoon fa la Modou Lo nag fas jàkkaarloo ak presse ba wax ak ñoom ci li nga xam ne nii moo jëm ci combat boobu nga xam ne moom la war a bëri ak bëri ak ka nga xam ne moom moo di Ama Baldé yëglikaay bi di sunu làmb moo xëy ñëw tey di nu wax lu mel ni ki noonu ba tey mu mel ni ki Modou loo moomu nag yëglikaay bi daal ñëw na ci moom bu baax a baax a baax ak ci combat boobu nga xam ne ni daal moom la war a bëre yëglikaay bi ñëwaat na ca biir xamal ñu ne day ka nga xam ne moo tëgg combat ba nag di lig Nicolas maanaam ci fan yi nu génn dem na ba Lagros fekk fa Modou Lo ñu waxtaan lu yaatoo yaatoo yaatu lu jëm ci mbiri combat boobu nga xam ne ni moom la ñuy waajal yëglikaay bi di sunu làmb moo xëy ñëw tey di wax lu mel ni ki noonu ba tey bu nu continuer dañ fay jógee dem fa nga xam ne ni nag moom moo di ca Leewtoo TV foofa moom la fa nekk lenn la maanaam idaali idaali ñi nga combat nga xam ne taxawalite na ko muy diggante mbaytin bu waalo ak dab daan ak nga xam ne nii moom moo di ñaa numéro 2 ak ka nga xam ne mu di Ronaldinho mel ni kii nag ñeenti mbër yi moom démb daje woon nañ fa nga xam ne mu doon ca kër Idaali ñi ngi waaye defante ba safoon na sàpp-sàpp ku nekk daal la dig sa morom mooy lu méttee métti buñ ca yeggee maanaam daal làqonte wuñu ku ci ne daal wax nga sa morom la ko bëgg def wala boog la nar a def yëglikaay ba ba tey bu nu demee fa nga xam ne moo di ca Leewtoo TV dañ ko fay fekk ba tey bu nu continuer fa nga xam ne nii tamit moom moo di ca record fa la ñuy dem record nag lañ fay fekki mooy ka nga xam ne nii moom moo di Abou Ndour Abou Ndour nag daal xëy na andi ñu ña nga ñoom ñoo di waa Equivox tamit ñoom tamit daa mel ni daal am na combat boo xam ne nii wala ay combat yoo xam ne taxawal nañ ko di ay combat espoir ba ca jëkk mooy diggante ma nga xam ne nii moom mooy ma ka nga xam ne na ko mel ni ki tamit mbër yooyu démb ñu nga jàkkaarloo woon di waxante yëg li kaay bi di record xëy na tey ñëwal ñu ci nii moom moo di record ba tey ñëw na ci mbiri arbitre ya ak li mu jàpp ne est-ce que maanaam jële fi li nga xam ne nii moom moo di commission indi fi li nga xam ne nii wala boog indi fi li nga xam ne nii moom moo di commission jële direction technique ndax lii moom du nekk sacrifice pour arbitre yi recours a xëy tey gisanu mel ne ki noonu benn bang ñetti candidat wala boog ñaari candidat muy diggante nga xam ne moom moo di Ambroise Sarr ak nga xam ne nii moom moo di Bafa Gueye bi moo xëy tey ñëw di ñu wax lu mel ni ki noonu mel ni ki ba tey buñ fa jógee nag dañuy dellu sunu làmb ak loo xam ne daal yëglikaay ba xëy na tey lu tiis la lu am ci làmb ji muy ka nga xam ne nii moom moo di Modou Seck di doomi ka nga xam ne nii moom moo di Assane di bokk ci waa kër Papa nga xam ne ñooy tëgg làmb ji Modou Seck nag di doomi Assane Seck moom la ñu yëglikaay bi xam ne daal ci àll ba jiinu génn daal maanaam la génn àddina wuy ji moo tax yëglikaay bi ñëw na tey di ñu xamal lu mel ni ki noonu ñu nga ko denc nag fa nga xam ne nii moom moo di yoof mel ni kon daal maanaam li ñuy def mooy jaale famille Papa Seck Papa Seck yëpp waaye jaale tamit képp ku bokk ci làmb di ñaan Modou Seck moomu yàgg maar yàlla na ko yàlla yàlla yërëm te xare ko aljana mook bépp jullit bu mu fekk ci suuf ak fu ku ko fa fekk ci barke yonente bi sallallahu alayhi barke yowmal jumaa asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk internet yi maa ngi leen di nuyu ti di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen ah. nekk rek ñu ngi la fay fekk fa nekk donte suñu loxo jot wu waaye suñu xel ak suñu xalaat mu ngi ci yéen ñëpp di leen ñaanal jàmm di ko sàkku si yéen di leen ziar si àjjuma ji bés bu sell bi di ñaan yàlla rek lépp lu ñu si ñaan wala ñu jàmm ko yàlla na ko buur bi nangu def ko maanaam muy loo xam ne nii xéewal lay doon ci biir àddina bi yëpp barke yonent bi na ko yàlla ndax mu ne ñaan leen ma ma may leen yàgg ngeen sant ma ma dolli leen kon ñu ngi koy ñaan rek mu di ñu defal jàmm di ñu defal saxadatu daara yi ni te itam di wàcc yërmandeem kon yàlla ñu defal yërmande rek zaahiran wa baatinan di nuyu ñëpp comme ni ngeen ko xamee nag tey sunu làmb dafa xëy ci xëtam mu njëkk ku ne xam na ne Pikine la xëy awali wan ñu ama ama seen booy ñang ba ci soq mel ni ki nag gaa yooyu moom fi bu diis la waaye nag ay mbër lañu seen moromi mbër lañ ko nar a seqal bu dee Eumeu Sène la ku ne xam ne diggante mag Lac de numéro 2 bëri na ñaari yoon benn match nul benn ndam ama yóbbu ndam la ñu war a bëriwaat combat boo xam ne ku ne gis na tension bi dèjà kere bañ leen di présenté ca Maris ak Gaston production suñu papa Gaston Mbengue ñu koy nuy di ko ziar muy combat boo xam ne bu nar a lay doon parce que li am solo mooy Eumeu li ma yaa ngi dégg Lac de Guiers tamit jóge ci combat boo xam ne donte gañe na ko mais na ko gagné maanaam mooy dañoo dem ba recours am ca ñu door koo jox ndam parce que gagné ko ca biir géew ba loolu mooy li nga xam ne moo amoon keroog Arène Nationale digganteem ak Boy Niang kon mu nekk ñaari mbir yoo xam ne ku ci ne tey da nga soxla boo ñëwaat ci géew bi nga def nga wane loo xam ne nii maanaam amateur nañ jàpp seen gémmiñ parce que nag te la la koy may mooy nga daan combat ba ci biir géew ba muy ndam lu rëy loolu moo tax mu nekk combat boo xam ne dina metti trop trop trop trop muy diggante Eumeu xam ne moom moo di Lac de bu Waalo ba tey Ama Baldé mi nga xam ne tamit ku ne xam ne moom combat bu mu jël mooy combat royal moom couronne la soxla te ko soxla ci moom da koo yàgg di yàgg nañ ko wax di ko waxati muy Modou Lo yàlla dox ba ñu dajee ka leen dajale di lig Nicolay moom itam di suñu waay ñu koy bëgg bu baax baax moom loolu la def moo tax nag mu nekk combat boo xam ne nag moom ku ne xam na ne ah yàgg maar maanaam ah dina mel ni ba ngóor jaay mbaam te ne nopp ya dem digganteem ak Modou Lo lu la ci waay mën a wax moom lu dul combat bu tar lay doon da wax la la neex waaye nag loo ci mën dégg nañu xam ne rek Sénégal la ñoo bokk réew mi sport la diggante bi nag parcelle ñun ñëpp ñoo bokk Sénégal nañ ko teg ci cadre sport rek waaw di nuyu promoteur bi ko tëg muy Luc Nicolaï ak conférence de presse bi mu organisé tey wala boog bi mu la war a def tey lépp nekk ci compte Luc Luc nekk koo xam ne tamit waaye dañ koy féliciter des fois parce que dafay def innovation yàgg dafa daal di jaar ndax ku ne gis na gàddu combat bu metti ca la bokk Boy Niang it beneen doomu Pikine gàddu moom itam combat bu metti diggante ak Tapha Tine Pape Thialis ko muy combat jànq muy combat boo xam ne nii ah maanaam boobu bokk na ci gë dàqal amateur ci saison bi Ama Baldé wala boog Boy Niang Tapha parce que ñëpp dañ ne woon est-ce que dina mën a taxaw ñu bëri yaakaar ne mën a taxaw ñu xëye xëy combat ba taxaw ci ay waxtu yu néew wala ay fen yu néew muy combat boo xam ne moom moom itam bu jar a bàyyi xel ndax booy Niang am na lu mu soxla tafaatin am na foo xam ne nii fa la bëgg a dem te dafa am lu ko daloon Pikine te est ce que dina nangu fotaat ci ndab la ñaari yoon est ce que booy li mu jógee est du ko bëgg a leeral ngi yoon gu ñëwaatee def lu leer moo tax combat bu nar a metti lay doon soq ak nga xam ne moom mooy gàmmu gi soqi di beneen doomu Pikine foofu Baba Diaw suñu waaji càm production moo fa jaar ma koy bigee bu baax baax a baax boo mu gël tapé Medina ah muy combat boo xam tamit soq moom ku xam ne ne ah, maanaam mën nañ relais fu Pikine bokk ndax lu muy wane la waaw ndax mbër la moo xam ne nii macha allah day bëre saf na xorom te itam nit ku sportif la par rapport boo déggee ay kàddoom moom soq loolu moom lu ñu mën a seddale ci moom waaye am na adversaire bu toll ni gàmmu géey muy xale lébu boo xam ne moom tamit am na lu mu bëgg tafaatin yëglikaay bi ñëw na ci moom moom daal nee na retour am ak retour am ci làmb moom lu explosif lay doon retour ba nag benn retour la sa digganteeg booy ñang la xaw dina tax exploser wala boo bëgg exploser di nga exploser par force wala booy ñang dina am ndox moom la sotti ba doo exploser bu buñ ca yeggee dana leer nan yónni yàgg du mën a ñàkk ba tey bu nu continuer ñëw ci beneen mbër moo xam ne nii moom maanaam ay defetam yoo xam ne ni yu ko metti la muy bàyyi ma njoon bu caaroy gëm sa bopp digganteem ak baabooy bokk na ca lees numéro 2 ak ba mu Modou Anta waa muy combat yoo xam ne da koo ñàkk yàgg maar te bàyyi ma njoon ku ne xam na ne ñàkk combat li koy yóbbee des fois duñ ne dafa ragal wala nangam déedéet maanaam bu ñëwee moom da ciy ne nekk googu mu ciy ne nag des fois mu am waaye di ko xamal ne loolu mooy sport ah waaye na dem liggéeyaat rek mu ci làmb ji bàyyeegul te bu dee muudu anta la ñoom ñaare làmb mën na leen boolewaat les deux kazalika naka noonu waaw ndax baabooy moom bàyyi na comme niñ ko xamee retraite ba dab na ko beneen xale boo xam ne moom tamit ku jara bàyyi xel la ci làmb yàgg maar dem nga dëkkam muy euh, ki nga xam ne moom mooy jamtéeri bu kayaar ndax digganteem ak Van Damme baat ak tontu la Mbaye Guèye Junior jël ba ko Van daan ku ne xam ne ne rëy na tonnerre da koo dóor mu daanu fa nga xam ne moom mooy ca maa nga foon digganteem ak jët li bër ki dem dañoo bëre ba dugg bu advocal mu daan jët jël bu garaaw a garaaw muy mbër moo xam ne te lu jiitu yooyu digganteem ak Baara Ndiaye ku ne gisoon na ko muy xale boo xam ne nii ah xaw ma mbëri dañ koy wóoy xaw ma dañ koy dégg waaye ku jara bàyyi xel la de jamtiir bu kayaar muy nuy waa kayaar yëpp mbër la moo xam ne daal macha allah am na xeex am na bëre te ndaama waaw ndaa ma lu doy doy waar la di ab lébu di nuyu lébu yëpp waaw lébu yi maa ngi leen di nuyu kullu kuy lébu rek maa ngi lay bëgg di la ziar ba tey yëglikaay bi ñëw na ci jàkkaarloo tey bi rek conférence de presse Modou Lo ci fa nga xam ne moom mooy teeru bi ah muy loo xam ne daal comme li ñuy wax rek parce que la ma doon ñaan ci combat bi rek yàgg moom laa ciy wax Luc Nicolaï euh, maanaam diggante Luc Nicolaï ak làmb dafa nekk loo xam ne histoire bu yàgg yàgg la parce que Luc dafa ñëw di innover ci làmb lu nit xalaatul ci làmb lig da koy ñëw def ko en tant promoteur ndax gis nañ fi mu loo Balla Gaye kera façon signature ya mu def ay hélico gis ay fumigène ci géew muy ay innovation ñu ne déet ne waaye pay per dugg Sénégal lig Nicolas ko njëkk a def réussir ko ñëpp ñëw def pay per tey mu ñëwaat def lan conférence de presse kii wax tey ajjuma ajjuma ji ci dollu keneen ka wax loolu maar tamit kon moo tax daal ku bindoon na a faw ñu tëggale ñaari bër mais lig ku maîtriser événement la macha allah moo koy nuyu di nuyu ku mel ni raay ba parce que li sama waay loolu yàlla dogal na ko yàgg maar eh, di wax ne ba tey bu nu continuer dem fa nga xam ne moo di record record nag moom wala boog Leewtoo TV sax la ñuy dugg ndax la fa am mooy ay xale yu jàkkaar maar démb waaru nga ndax dab daan mu jam ñaajo ibba jam ñaajo comme niñ koy waxee diggante ba mbaytin combat bu dara métti i daal yi ngi jaar fa ñu ne déet ne waaye Ronaldinho bu guy murit bu tëngéej diggante ma nga xam ne nii moom moo di koña bu yëg Dakar nekk fii ci Colobane di doomi Bawol muy combat xam ne idaale fa jaar a metti ndax waxante ku xaar vidéo yi Leewtoo TV da nga nañ te nar bu defante ndax waxante ba metti na trop waaye tamit ñëw nañ ci moom buñ fa demee lan fay fekk mooy Equivox tamit ñoom it ñu mel ni ñu ngi bay seen waaran parce nag combat yi ñuy taxawal amateur soxla nañ ko te ñu ngi koy def te xat ban maanaam yi ñu taxawal nag mooy musique bu caaroy ak ka nga xam ne moom mooy ah noiro bu dut bakasaar waaw muy xale yoo xam ne ni yoon tamit combat yu nar a neex lay doon waaye yemuñu ca fourrière bu Grand Yoff ki fi bëréw nag bébi jën combat bu metti ba digganteem ak Baye Mandione Senior di rakki Baye Mandione xam ne lu Baye Mandione wàqi ne na dina ko suul bu soobee yàlla muy xale yoo xam ne loolu Equivox moo fa jaar muy bés yoo xam tamit ñu ngi ñaan ñu yegg si ca seen euh, G5 boobu nga xam ne moom lañu ñu yàlla nañ ko réussir ak jàmm parce que tamit ku yokkul yaa wàññi comme ni ko waxee rek ba tey record bu ñu ngi fay gis la nga xam ne nii moom mooy arbitre yeeg a doon a taxawal na doon rek man loolu laa ñu ko bëgg a soxla pour tooge ko muy Doudou Baka muy Ambroise Sarr ak ba pour man bu dee wàllum coaching la a doon ci làmb moom dama naan mérito nga ko ndax wane nañ bu seen a baax euh, moom mooy Ambroise Sarr ku ne gis na ko équipe nationale trophée yu ñu fi teg fii ci wàllum lit CEDEAO jël na ko at yëpp moo koy waabale Bafa Gueye ku ne gis na fa mu yóbbuwoon équipe de Fatick ci wàllum drapeau du chef de l'État kon defe naa ñoom ñaar ku ci ne daal luñ la jox rek dama naan mérito nga ko waaye maar dañuy dellusiwaat suñu làmb rek jaale famille Pape Seck yëpp jaale waa làmb parce que Modou Seck moom di doomu Assane Seck xale woon boo xam ne ràññee woon nañ ko nii ci ginnaaw papaam mu daan ko jàppale ci liggéey bi mu daan def muy tëgg ci làmb ji moo génn àddina mercredi passé ñu suul ko ca yof muy xale ñu koy ñaanal yàlla jégal ko te xare ko aljana di ko jaale waa ñaari tali Grand Dakar benn tali waa NCB yëpp ñu ngi leen koy jaal di ko jaal waa làmb ji Assane Seck moom di sama waay wax dëgg yàlla di nit ku baax vraiment ñu leen di nuyu ñoom ñëpp di leen ziar den wax ne ñoom mu ñu pousse bi mu réer famille Seck boobu ndax seen papa yàgg maar moo daan tëgg làmb ji yàlla jële ko fi ñoom ñu continuer loolu seen diggante ak promoteur yi kenn mësu dégg ci ñaxtu wala wax ju dul noonu tout ñu ngi def seen liggéey bu ñu paree dem seen yooyu famille Pape Seck ma leen di nuyu bu baax di nuyu waa comme ni ma ko waxee sànq rek yàgg maar waa ñaar boo xëyee madame génneel la ko jox la nga sol mu laal la parfum loolu bu mu ñëwee rek li ci des moom waa taalibi gi day gën a mat nag eh, il faut nga def loolu man taalibi Serigne Saliou nga taalibi Serigne Saliou faw mu deñ soxna du mën a ñàkk ay soxna sax la war a deñ waaye faw nga commencé ci benn loolu du mën a ñàkk maar faw nga dugg ci lool waaw di la ñaanal jàmm bu baax a baax di wax ne yow borom mbaax nga bàyyi faal nga góor yàlla nga di la nuyu di nuyu waa Liberté 4 yëpp yëpp yëpp mais képp ku ñu suivre rek à travers le monde ñu ngi lay bëggee mais waa Afrique du Sud du ma leen fàtte maa ngi leen di bëggee bu baax a baax di nuyu waa Norvège ñoom da baax gaa yëpp fàllu seen ma mbokk sama doom ca Brésil maa ngi koy bëggee moom tamit di nuyu ñoom tuuti yaay Sarr mais Lamine ñaan bu ëmma seen nan ma soxnaam am doom hmm? kon Lamine sa doom joodu yàlla na gudd fan te wér dëkk ca Fass Barigo Lamine ñaan di soppe ama seen ma koy bëgg bu baax a baax mais di nuyu sama benn xarit koo xam ne ñoo defandoo lépp maar muy mbuustal nekk ca itali di mécanicien yore fa garage ma koy nuyu bu baax di nuyu waa Italie di nuyu soxnaam ak ay doomam yëpp di nuyu tamit parce que doomu ndondol la ñoo bokk dëkk di nuyu waa ndondol yëpp di nuyu Serigne Ndiour nekk fii ci Yaraax moom tamit nekk itali maar yàlla na jàmm yàgg Sénégal